Garuda.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 mbokki ñuy euh, tewlu saa ne si euh, télévision bi ak radio bi ñu leen di nuyu bu baax a baax tàmbalee nuyoo bi ak euh, ziar beeg ñaan yi cheikh Mouhamadul Muntaqa moom cheikh Mouhamadul Bachir mi fi Serigne Touba Khadim Rasoul di ñaan sunu borom yàggal ko fi loolu tamit ak wér noonu la ñuy ziare ak a ñaanal Serigne Cheikh Jëmb Fall mi fi maam Cheikh Ibrahima Fall sunu borom gën ko fay yàggal loolu ak wér <coughs> di beral nuyoo ak ziar Serigne Cheikh Ngunda Fall mu maam saalihu mam cheikh ibrahim fall suñu yaakaar tay ak ëllëg di ñaan suñu borom katanal ko ba lim yene yéenee liggéeyal maamam ju tedd ja mam cheikh ibrahim fall mu defé ko nu kawee njortam tande ak mbokki talibé mbokki di leen ziar bu baax ni leen ko diggé won boobu ba si bande annonce yi xam ngeen ni tay mu doon plateau spécial mam cheikh ibrahim fall cheikh mohammed fadal mbacké xam ngeen ni ci euh, wéru tedd wi nga xamanteni moy euh, wéru rajab si bis bu màgg bi nga xamante ni moom la ñuy waajal di Kazu euh, Rajab xam ngeen ni mbokk yi ni ko toppee woon boobu ba léegi sëñ Mamour ndaw ànd kaak sama jëwriñ ci biir Jazboul murit seen jotaay bul murit tey nag xam ngeen ni ñu fas yéene ko euh, maanaam euh, waajale maanaam jotaay bu mujj bi laataa ñoo dem si dëkk bu sell ba di Touba ci nag kon màggalu ko Kazu Rajab gi tax na kon mbokk yi tey ñu defal leen ko special ci gàwwu gi ndax mu gën a yaatu nat ko fas yéene indiwaat incha allah ci talaata gi sës si màggal gi di si ziar bu baax a baax cheikh abul baraka moom cheikh mohamadul fadal mi toog jotaayu cheikh mohamadul fadal di ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu tamaan ak mbooleem njabootuk cheikh mohamadou fadal gi te di si beral nag nuyoo ak ziar ak ko ñaan suñu sëriñ cheikh amadou mbakke cheikh amadou badawi nga xamante ni jotaay bi suñu borom dogal na ni maanaam si loxoom la la la la tegu ba liñ ci am ni yépp ñu am ko ci ci ñaari jëm yi tedd yu maggi yi nga xamanteni euh ay borom yi euh, barké lan ay borom yi jël lan ndax nak euh, ñom ñaan ñëpp machallah dañ di doy mag di leen ziar bu bah baax ci nak ñëpp xam leen ci yoonu murid machallah di ñaan suñu borom katanal leen euh, té may leen guddal seen fan lool té saxal ci ñom gëreumal serigne touba ak ñun ñëpp barki mam cheikh ibrahima fall ay muy nak serigne satu jaxate mu baax mi ak Cheikh Bassirou Gueye mu baax mi xam ngeen ni mbokk yi ñoom lañ fas yéene àndal jotaay bu màgg bi jotaay bu tedd bi waaye nag lépp ànd kaak sunu jëwriñ Serigne Mamour Ndaw Baye Fall moom euh, Baye Fall lool ni ko sëñ Amsatou waxee sànq sunu xol bi sedd bi moom dafa Baye Fall macha allah di la ziyaar bu baax a baax tey moom jotaay bu spécial incha allah te nag ni nga koy waxee fas yéene ko aj ba mu aji si kaw a kaw. salaam suñu yaakaar Cheikh Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi lool dëgër di sàkku ci mbir yëpp mu ñaanal ko ba ay naalam lépp mu yeggale ko bu suñu yeneen naal waaye ñaanal ko baax suñu jàmbaar ji di Serigne Cheikh jëmm di suñu bunt ci maam Cheikh Ibrahima Fall ñaan suñu borom mu doole ko fa yàggal bu baax a baax hmm. te doole ko wér ba ay naalam lépp mu yeggale ko hmm. eh, ba sumb yeneen naal waaye di ko ñaanal mboolem njabootu Serigne Touba Cheikhul Khadim gi yëpp mboolem Cheikh Serigne Touba yëpp eh, di leen ziar bu baax baax ci weeru màgg tedd yi di weeru Cheikh Fadal ñuy waajal bisam bu tedd boobu di ñaan suñ borom ñu yegg ci ak jàmm waaye di ziar bu baax a baax a baax sëriñ Abul Baraka mi nga xam ne tey moo fi cheikh Mouhamadul Fadal waaye di sëtu cheikh Ibrahima Fall Baye Mouridina mm-hmm. tey jotaay bi sëñ Fallou cheikh Ibrahima la sëñ Abdou Karim Mbacke sëñ Fallou waxoon nañu diggante cheikh Ibrahima Fall sëñ Fallou moom eh, sëñ Abo mi leeral na ci suñu mm-hmm. <laughs> na sëkk ci ne soxna maam say Fall sëñ Moussa Fall cheikh Ibrahima. Mm-hmm. Eh, di sant bu baax a baax nag. ak a ñaanal euh, su jàmbaar ji nga tudd léegi muy sëñ Ahmadou Badi yi moom Cheikh Mouhamadou Fadal di jàmbaar lool koo xamante ne bii pas-pasam ak yéenam yëpp mooy euh, taxawu liggéey maam bi di sëriñ Touba Cheikhul Khadim xam ngeen ne saa bu waxtu jotee rek moom euh, sëñ Fallou Cheikh Fall ji moom daf ñu ci taxaw baax a baax a baax a baax boobaa léegi mi ngi wootee ndeysaan di di nemmi ko murid yi mën a ko yegsi nañ muy Serigne Cheikh Basirou Guèye moom Baye Soulaye Guèye nga xam ne moom ni nga ko waxee léegi rek ko am cër ci yoon wi ndax bàyyi su lay doy na sekk ñu ne koo xam ne taw sëñ Issa Diène moo la meññ kon sëñ Cheikh Bass Gueye di jàmbaar nag di koo xamante ne bi yooyu juróom diggante ma Cheikh Mouhamadou Fadal at de bépp ko moom itam xam nga ne moom ko xam ne xam na cërub sëñ Fallou la <laughs> ñu koy ziar baax Cheikh Bass Gueye di jàmbaar lool nag euh, waaye di ziar bu baax a baax sëñ Amsatou Diakhaté mii mom serigne Modou khairi Jaxate mom serigne am satou Jaxate serigne am satou mag mom serigne touba cheikhoul khadim moy ma mo meññi way jërum jërum di jambar lol yag top topp serigne touba cheikhoul khadim euh man bokk na ci nga xamne ca goné ñet cassette gànnaar yeeg njaarim yëpp dama ko guddé ak bëccëg suba ngon daaw ma ko bàyyi ndax mag ñi rek la da top te bo way jërum nak kuma kuma ku ma bëgg la bëgg ko lol ngir ngir ngir gëstu ak ak ak ak yaatal liggéey sëriñ Tuubaa Seexul Xadim muy borom cër ñi ay jambar lol nak ndax euh, sëñ Alim Badara li ci gën a yéeme rek mooy ay ndaw lañ waaye dañoo sóobu ci liggéeyu sëriñ Touba ba pare nag sóoboo ci ak fit xam nga sëñ bi fit a koy waxtaanee waaw ndax euh, sëñ Touba moom kenn la ci kennam gi moom ba laa yow mi dañ koy waxtaanee léegi nag boo gisee mën a la léegi du mën a ne ci suuf mooy dañoo dañoo war a waxtaanee Cheikh Mouhamed Al Fadal ak maam Cheikh Ibrahima Fall. ndax sëñ Fall waxoon naa fii na pilis Cheikh Ibrahima égal yoonu murit te loolu moom ñëpp xam nañ ko kon nag oh, tey comme ku am gën tëraan yi te àddinaa ngi leen di topp te am na lu ñu yéene ndax eh, Signaline Badara nañ bàyyi xel ne waxtu wi ñëw fii dañoo fekk Sénégal ne ci ay yëngu yu doy waar mën naa ne sax Ndakaaru ak li ko wër mhm. waaye dañoo xuus xuus lañ def ndax ndigal li leen Cheikh Ahmadou Badi yi jox ngir mu ñëw fii tey waxtaane Serigne Fallou Cheikh Ibra Fall moo tax ku ne xam na ne Touba lañ bàyyi ko waaye waaye te nag danaa la wax leen de gisa diggante démb tey barki démb mhm. kenn kooy invité mu mu jóge Touba ñëw fii yombul de ndax koo wax ndax koo wax mu ne la fa may jaar te it nag dëgg la parce que kenn amul foo jaar waaye nag da na jaral da leen a jaral ndax xam nañ ne moo tax bi ma gisee sëñ am surtout léegi mu yegsi dama ne la daloon mag ña ca koroog ba ñuy yóbbu dem soldaar moo ci tàmbali rek loolu moo leen feeñ ndax koroog ba bañ peesee mag ñi ngir ñu dem soldaar mhm. te sëñ Touba yebal leen ci ndi ñu jaare ci Cheikh Ibra ñu dem keroog bañ peesee ba lim bañ soxla mu mat ba Seex Ibra ne doy na dañoo yoxoon duñ fi des Seex Ibra ne am leenuk dal boo leen jërab santaana du jeex loolu laa gis ci seen jëmm yi ndax waxtu wi génn nit Ndakaaru yombul këram ndax la ko waral ñëpp xam nañ ko mooy xeer yeeg yeneen yi ci des te ku ci yoonam bokkul rek nag da ci yàlla mën a teg napp moom ah, ku ci yoonam bokkul waaw kay léegi nag kon suñu xuusee ci biir euh, jafe-jafe yi am tax ñu ñëw ne dañuy waxtaane sëñ Fallou Seex Ibra Fall des na leen delloo njukkal nag di ñaan sunu borom mu doon leen a taxaw bu baax a baax sëñ Fallou mi leen tax a dikk ak Seex Ibra Fall gis na leen dana leen fayal bopp. alhamdulilah tubarkal <laughs> jërëjëf Mamour waaw nañu fayal bopp nañu leen fayal bu wër a wër barke maam Cheikh Ibrahima Fall jox kàddu gi kon eh, sunu sëriñ sëriñ Amsatou Diakhaté mu nuyoog mbokki taalibe yi ñu mën a tàbbi si waxtaan wi salaamaaleykum sëriñ Amsatou bismillahi rahmaani rahim barkeb Cheikh Abdoul Ahad <coughs> yaa xayra munsilin waqa bi xasbala wa xayra munsilin xaba bi basmala mhm. salli bi taslimin ala man faaqa fi xalqihi wa xulqihi ittifaaqa سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما بك استعاذ من سيطاني ونور القلوب كالأوتان وفيه باركت وفي الصعابة وآله ومطر الصحابة بارك سي عبد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكي yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziare jiital ci nuyoo yi ak ziare yi Cheikh Mahamadul Muntaha di ñaan suñu borom yàggal ba li mu yéene liggéeyal sëriñ bi lepp mu def ko ni mu ko bëgg saahiran wa batinan te ko koog mboolem njabootuk sëriñ bi and ko ak talib yëpp itam euh, di balaq àq ñëpp di leen di ñaanal bu baax itam Cheikh Abul Barak mi nga xamne mo tok toga toogaay Cheikh mamadou Fadal di ñaan suñu borom mu yagal ko fi ak mbolam njabootuk Sëriñ Fallu yëpp soppay soppay Sëriñ Fallu euh di ñaan yalla def jamm ci réew mi barkeb sëriñ bi ak li ko Euh, kenn bañ am lu ko metti suñ borom saafara mboolem mi ñu fiy jàmbat yëpp ci barkeb sëñ Fallou euh, di euh, nuyu kër gi ak borom kër gi di nuyu jataay bi itam fab nuyoo yi xam ne moo jëm ci borom kër gi ak ñi fi nekk ñëpp di liggéeyal sëñ bi fab nuyoo yëpp teg ko ci loxol sëriñ Jibi sëriñ sëriñ Aline Badara mu dagal ñu ko ci loxol suñ maamun moom it euh, mu teg ko ci loxol kilifa gi nga xam ne mooy kilifa euh, kër gi signal yi ñu ci woon di ko nuyu bu baax di ko siyaare di yu Cheikh Basirou di suñu xarit di suñu lépp euh, di am mbégte lool nag ci ndigal li nga xam doon ñu koo jox ñu tëli ko lool tëli gi jéggi dayoo waaye ñu jox ñu ndigalul rek donte benn baat lañ fiy yëkkati sax boo xam ne mën naa jariñ xëy na ñu mën koo jariñoo rek mu jëm tam mu jëm ci sëñ bi ak waa kër sëriñ bi rawatina ci buntub Cheikh Mahamadul Fadal Cheikh Ibrahima Fall euh, loolu ñu ngi ci sant bu baax Cheikh Amadul Badawi mi nga xam ne moo ñu woo woo jox ñu ndigalul ñëw fi euh, keroog bi mu ñu woowee itam woote gi rëy lool ci ñun ndax wool ma ko rek doyoon na waaye woola di la wax la la yitte woo moom day mel ni xawoon naa di sax ndax damay jàpp ne wool ma ko mu ñëw bu ñëwee nga wax ko liñ koy ndax ñun ay bagages yi Sëriñ Tuubaa rek lañ incha allahu taala te moom lañ fa yéene doon képp ku bokk ci sëñ bi noo ci bokk rek foo ñu soxlaa buñ ci mënu dara it jéem ko ndax moom mi ñu fi yabal xam na ne li ñu li ñu yabale xam na ñu ñu ko dàq fuuf gën ñu koo man waye nak eh, mom dañ wax ni ko sa bay doon gaynde boo mënta nek gaynde de it nga jima a beut bët nga xam am nga yene ji ñu ngi nuyu sëñ basir bu baax momit diko di ko tatagal di ko siyaare eh, di rafetlu liggéey bi nga xamne ne mi ngi koy liggéeyal sëñ Tuubaa momitam mm, ñaan suñu borom defal ko ci tawfiq ju reey ci barke sëñ Tuubaa eh, di fasiyene inshallah incha allahu taala luñ man rek ci jima teunk tout rek lu ngatt gatt ci Cheikh mamadou Fadal ñu tënk ko su ko defee xam naa suñ bas moom yaakaar naa dana ci gën a mën a xuus gën cee yaatal ndax yaakaar naa yu bari moom waaj na ko waajtaay waajtaay woo xam ne yaakaar naa incha allahu rabbi buñ ko digloo rek xam naa moom dama ci sof ay baat rek waaye moom xam naa li ëpp ci waxtaan wi gi ëpp moom dama koy bàyyee te xam naa yaakaar naa tënk na ci loo xam ne am naa lu ma ci xam loo xam ne boo ko tënkee rek dañ dañ ko mën a jariñoo ñu ngi nuyu ñëpp di ñaan suñ jubaa ci barkeb Cheikh Mamadou Fadal jotaay eh, bi nek faju aajo ci mbollem mourid yep mbollem julit yep ci barke Sëñ Tuubaa jërëjëf baax a baax bismillah sant nañ baax a baax wax deug yalla seigne am setu fum dal xamna ni mom seigne Mamour lu mën di xew dal ñun ñu ngi ci wat gi rek inshallah di di di di fas jariñu mm-hmm. si eh, ñaari borom xam-xam yi sha allah seen xam-xam rafet lool ma sha allah am mbégte Cheikh Bassirou Gueye xam ngeen ni topp ngeen ko spécial Jazboul Mouride hmm. waaye nag ñëwaat na waaw macha allah tey ñaan suñu borom hmm. yoon yu bare baree baree rek alhamdulilah rabbil alamin Cheikh Bass ñu ngi jàmm si plateau bu Lamp Fall aouzu billahi min ashaytani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in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 الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وخلفائه أجمعين. بارك الشريط بخليل المصطفى. الحمد لله. بكي جلدي بكي تعليمي. بنا بنا سنتي يلا بنتي عندي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله. بنا بيسني كابي جلول نك مي تامبلي دينيان البرم توباشي محمد جدين منتقى بكي. sun borom gën ko fe yàggal te dolli ak wéram ba li mu yéene ci liggéeyal sëriñ bi lépp mu def murid yi li ñu yéene ci yéene ci ànd ko moom lépp it suñu borom may leen carte nag ñu man koo ànd ak moom liggéey suñ tubaab bi mu naan daal tañ fekke ko euh, ndax fekke lu baax yomb na waaye jëf ci moo jafe yàlla na sun borom may pasteefu ñu mën cee jëf ci sunu alal ak sunu xel ak sunu carte nag lépp ànd ko moom ci barkeb sëriñ Tuubaa euh, rawat naag liggéey bu mag bi muy université Touba bi nga xam ne ñaanu ko sëñ Touba la gu nangoo ci moom yàlla na yegg il Moustapha lii banal xudduusu madrasatan biha yazul azawal jahlu wal kabadu kilifa gu mag yi nga xam ne moo nu fi yabar li si Ahmadul Badawi moom am ci cër bu mag ñaan yàlla na lépp àgg dañ fekk ko ànd koog ñoom barke ci barke sëñ di nuyu bu baax jëwrinam Cheikh Serigne Moussa Mbacke moom Cheikh Mouhamadul Moustapha Bachir mhm. euh, di ñaan suñu borom moom itam gën ko fa yàggal te dolli ko ak wér di nuyu bu baax nag njabootu Serigne Fallilou Mbacke gépp tambulé ci nga xamni moy mooy Fallou tay ci kaw souf di eh, sëriñ Abul Baraka mu Cheikh Mamadou fadl mom tamit yalla na fi yag lol ta and ak wer lim mu bëgg liggéey lépp yàlla na ko liggéey te ànd koog moom ci barkeb sëñ touba di nuyu jawri ni kër ga Cheikh al bashir mu Cheikh Mamadou fadl ak ki nga xamni ne moo kaddu eh, di Cheikh Abdoul fatah ak eh, mhm. sunu way Cheikh al murtada Mbacké moom Cheikh Mamadou Fadil mhm. ak mbooleem njabootuk sëñ Fallou gep di nuyu sen rak Mm, soxna am Faati Mbàkke bintu mm. Cheikh Mouhamadul Fadal soxna Faati Juma mm-hmm. nga xam ne moom bàyyi moo bàyyi fàll la ci kër ga mm-hmm. ñaan sama borom ci seen barke ñu ñëpp ak seen daraja di sàkk ñoom itam ñëpp sax ñu ñaanal ko ñoom ñëpp mm-hmm. kilifaam yooyu ñu ñaanal ko fi bu baax bu baax mu yàgg fi loolu te gën a wér <laughs> di nuyu nag sunu waajur sunu sëriñ sunu lépp di sëriñ Souleymane Gaye Euh, jataay bi tey moom laa ko tuddee. <laughs> waaw ab jataay ma de. Ah, waaw moom dama koy yëg ci jataay bi. Ah, bu ma gisee photo sëñ sax bu ma ko gisee. moom lay dund ci foto bi. moo tax dama koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér. ci barkeb mm. sëñ Tuubaa. amiin yaa sama sang bu tëdd boobee. Cheikh Mamadou Fadal Gaye di ab taawam. nga xam ne mm. mooy sama lépp. moom lay déglu. waaw mooy sama lépp moom rek laay déglu. yàlla na fi yàgg te wér. yàlla na mucc. yàlla na wér yàlla na yeggale li bëgg lépp yàlla na ko am te am na ko nu kawe njortam ci barkeb Serigne Touba di nuyu bu baax a baax a baax a baax njabootuk Cheikh Ibrahima Fall képp lamp baabul muddin saa maam Cheikh hmm. maa ngi nuyu ak njabootam alhamdulilah ñaanal Serigne Cheikh Jëmbu Fall bu yàgg fi loolu te wér ak mboolem njabootuk Cheikh Ibrahima Fall gépp di leen nuyu yéen mbokki taalibe yi nga xam ne yéen laa bokkal jataay bi di nuyoo ci jiital ci nuyoo bi hmm. sama kilifa gu bax gi nga xam mom moom la àndal ndax nun ñi nga xam ne imam maam ñoo fekke won seigne touba and ak mom wala ci mag sa mag la ku ci sa baye sa baye la ku ci sa mam sa mam la eh, kon seigne xam surtout ma am mbek na mhm. mbek mi moy tay fi mu xam ci dekk bi bari na waye bimu dikki nak da wacc ci nun nu yendu fa di ci ci xéewal yi ak bernde yi xam nga man dama daru mi na ne sëñ bi eh, rek la xam <laughs> nu yendu fa di bernde ba tuwarkal la ñu andalo ñëw fi ma ngi koy ñi diko ko siyaare bu baax a baax mm-hmm. sëñ Alioune ñu lay mm-hmm. nuyu di di la siyaare yaag sëñ Mamour li tax may sawar ci seen plateau mm-hmm. damay gis ne li ngeen li ñuy waxtaane bu ngeen invité nit mu waxtaane sëñ touba yeen da ngeen di dund wax ci day feeñte sax ci mbégte mi ngeen di andal <laughs> loolu man ku bari ab seetlu laa ndax yàlla maa ngi sant bu baax di ñaan ngeen yag fi loolu di di nak Cheikh amadou Badawi tay mom maa ngi tooñ sax sëñ Mamour naan ko day bi dañoo ñàkk pëste waaye kon bi may ñëw mhm. damaa waroon a jël ak laxasaay takk ci ndigal yi ndax ndigal lañ fi ñëwee waaw tey moom dëkk bépp buñ ko baare woon mhm. bu baa nga xam ne ay murit lañ nag mhm. waaw dañuy xuus ñëw ndax dañ ñoo yónni waaw dañ ñoo yónni te ki ñu yónni jaral nañu nag waaw buñ baare woon dëkk bi ne bu kenn jàll kon ngeen xam ne ay murit lañu ndax danañ laxasaayu xuus dikk jëfe ndigal li delluwaat doomi ndigal nag faatu ci ndigal wàññiwu ko dara de ah. ñun ay doomi ndigal lañu ah. kon noo ngi koy ñaanal suñu boroom gën ko fi yàggal hmm. te dal yu ko wéral di siyaar sopp yi ñuy déglu yépp ak mbokki taalibe tey wax rek na na na wéy ca kaw rek moo la wax léegi ca kaw moom ca kaw ca kaw foofu la tàmbalee sax ndax na damaa bëggoon moom mhm. bala ñoo tàmbi si dëgg-dëgg waxtaan wi ganaam mhm. nga ubbilal si ña si ñam setu jaxatu mu baax mii mhm. ndax yow si jotaay bi nga bokk ndax nag du sa njëlbeen macha allah <laughs> wala bala ñu ubbi rek ngir bañ koo fàtte ndax dafa am farata ju faratawu joo xam ni dafa bokk ci liggéeyu sëñ Fallou Mbacké waaw muy fan yi ci ci ci sëriñ Fallou yi lay xamal ni yëf yaa ngi dox ci am jëmm ju tedd juy wax Cheikh Mamadou Fadal doomu sëñ Tahir moom sëñ Falil àllar bi njëkk ci weeru rajab teg na pause première paire yi alquran kon nga xam ni sëñ Fall dafa mel ni jaamu yàlla ak liggéey ko fi indi woon mm. loolu kenn ci ak njabootam jëmmal na daara jooju tudde ko jës bul xulóob mu wóor ma ni daara la jooj doo xam ni tax bu taxawee ba mu sotti mm. képp ku fa génne di nga am xam-xam di nga gëm sëñ Tuubaa di nga murite wax yàlla kon loolu nag ñi ngi ñaan suñu borom tabaaraka wa taala damaa ñor lool ah eh, ñoom dañuy ñu am jom ñoo xam ni mhm. bi fi seen jur di génne génn àdduna ci saaxir mhm. boobu ay tuut tànk lañ mhm. waaye ba fii may wax ak yow kenn ci ñoom koo xam ne muy Cheikh Amadou Fadal muy sëñ Abdou Lahad rakkam kenn kuñ mas a gis ci ñoom ñaar ci lu ñuy xeebe lu ñu lay xeebe amul mel na ni euh, manoon nañoo teel a moom seen bopp lool kon nag ñu ngi leen di ñaanal suñu borom yàggal leen fi te wér bal te lii Cheikh Mamadou Fadal naal dañ fekkee xeer wu njëkk wi mhm. yàlla nañ fekkee inauguration bi te ànd koog moom di di soññi bokki taalib bi yëpp amiin amiin kon bu ko defee la way ci istixfaar di ci tuub di ci dellu ci boromam moom moom la ñuy ubbee jataay bi mhm. insha allahu rabbi mhm. inni ila rahmani sumataabi من كل ما يبدي إلى العتاب إني إلى الرحمن ذو متاب من كل ما يفدي إلى العتاب سبحانه من قابل سنوب أكرم به من ساتر العيوب تبت إليه توبة نصوحا وإنه يسر للقبيحا غفار يا جميل يا وهاب يغفر ويجمل وفي معنى هاب فتاه أنت العزم السيد وإنك الرحيم والمجيد ربي بحرمة القديم أحمدا لغفر ذنوبي وحيالي أحمدا إني لسان في الكثير أطلب مغفرة منك ومنك المطلب لك الوجود ربي والبقاء والملك والقدرة والصناع لي جل بتوفيق مع القرآن وبرشاد ثم بالرضوان هب لي القديم قبران الذنوب جميعها ولسرا كله يوم هب لي القديم قبران الذنوب جميعها ولسرا كله يوم يا فاضلا فدله الخلاق يا من به فارخ الاملاق يا فائزا يا من فارقني واجهتك اليوم ولي رساه كان بما تنمو بلا ساخ محوتاني ما به النفاق اني مها وجال النفاق مها وجال maha wajanin nafaaxu raddatali ma saanaw nifaaxu bi man di sanaaratin lu afaaxu jaari baa jaari daawal fawsu wal irtaamu bika kama bika taratitaamu bika tawaynaa maanaam nastaaxu salaa alaykal akramul xalaax aljuma tey kasu rajab la takk dundul ilaahi dar ko ngër may bàkku wax nañ keroog daam dañ ni buñ ko nampal fi gerte bi soo bus ko jox toqental suñ fan tarkala macha allah jërëjëf Cheikh Mamadou Cheikh Basirou moom daal nu mu waxee rek yow moom yaa ngi daal mun nan ñu ne ñu ngi daal mun nan rek ah, di Cheikh bu baax Cheikh Mamadou di ko gën a ñaanal mu yàgg loolu te ànd ah, waaw Ibrahima Satou dégg nga Cheikh Cheikh dafa mel ni bakk na Cheikh Mouhamadul Fadel hmm. mi nga xamante ni laataa ñoo dëkk si xamle jaam ñi kan mooy Cheikh Mouhamadou Fadel donte lu lu jafe la hmm. dañuy njëkkee si kan mooy waajuram Cheikhul Khadim waaw ah. jërëjëf. Mm-hmm. xam naa suñu bas moom damay ragal le mm-hmm. sama kàddu moom mën naa bañ a xaw a xaw a mën naa bañ mën naa bañ a gudd. Ah, euh, ndax day mel ne. Mm-hmm. li li ñuy soxla lépp mel ne ne boole la ko. Euh, te day mel ne. fi mu tàmbalee ba fi mu daanee la sax wax dëgg yàlla liñ ci metti lu mooy bàyyi gi <laughs> xam naa bu ñu ko joxaatee kàddu gi nag bee boo moom mu far ko continuer rek. ndax daal mel na da nga du xam lu mu ci loo ci war a jàpp ak taxawaay bi daal moom damay ragal ne xam naa mooy mooy doon sikkisi si bu jëlaatee kàddu gi ndax bu dee wax ji day rafet bu dee njàng mi day neex te ñaan yooyu rek nag moo ñu fi indi te wax lu ñu mën a dégg moom daanaka euh, kenn bu ko mënee yóbbaale ñëpp <laughs> kon day mel na nag tudd na ay fadlullah yu bare bare ci biir kàddoom ta eh, fadlullah mom mom firine bopam boppam fallu nak su fekente ne dañ ko wara wax ay baat nga laaj wax ñu tambale ji fallu mom kan moy wajuram so nek moy wajuram mom day mel tante bi man na gatt waaye day mel na suma ma déggee li nga bëgg a wax mooy jikko yi nga xam ne xëy na moom la ñuy waaj wax ci moom laaj na ñu am ku ñu wax koo xam ne ca kooku la soqi koo ba tax bu jikko yi dikkee rek danañ xam ne li ak nii mën a ne euh, Sëñ Tuubaa nag buñ la laajee ne kan mooy Sëñ Tuubaa mbaa boog man buñ ma ko laajee kan mooy Sëñ Tuubaa la ma cay mën a teg mooy xawma ko xawma kan mooy Sëñ Tuubaa boo fekkente ne itam am na koo xam ne boo ko ko laajee ne ko kan mooy Sëñ Tuubaa lu ñàkk mu ne la nee na moom nàngam la nga xam ne kooku dana la tontu nga xam ne ñaari tontu yëpp bu ci nekk mën naa mën naa wér dañuy wax ne gàncax gu set gu sell te baax wala jiw wu set te sell te baax mooy mën a indi ja gàncax gu set te meññ te rafet gàncax jiw set wu sell wu baax woowu nag mooy ki gën a baax li aw jiw ci jiw yi gën a xam aw jiwu ñëpp tànn it ba kenn tànn gut ba mu tànnee ba noppi itam seet fa ka ci ak tos mu tobbi fa aw tobbam lam fa ji lam fa ji bam saxé bok na ja charia ya fa saxé Cheikh mahamoudou Fadal gën ñoo xolal son bi rek ndax mom tay mom dañoo bëgg mom manam eh, li fi génn lepp rek manam dara duñ ci rawati na mbokk yi nga xamanteni ne ñooy señ ñoo xolal son bi bismillah Cheikh Fadal kon señ tuba mi nga mooy li ñuy wax waajur ci Cheikh Mahmoudou Fadal te bu ma neexee it ne mooy sëriñub Cheikh Mahmoudou Fadal ndax jaayoon na ko ko te njaay ma jaroon na ba jox ko ak njëgam mu jëlaat njëgg jaawaat ko nu ko ëddiya kon su ma nee mooy sëriñub su ma neexee ba ñu tudd ne leneen Sëriñ Tuubaa moom nag mooy ki waxoon ne dara jaam ji gën a kawe ak turam bi gën gën a màgg mooy abdullahi wa xadimi rasulihi am na tur yu bari nag yoo xam ne bi mu fiy nekk la am na yeneen tur it ginnaawam yoo xam ne bu fi ma waxee yoon ni ñu ngi koy wutal yeneen i yu baree baree baree bari ndax Sëñ Tuubaa am na muy borom Tuubaa Seexul Xaddim am Ahmadu Bamba am na yàgg na borom lépp dox na ko kooku nag nga xam ne boo wax ci moom doo xam foo tàmbalee muy sëriñ bi boo bëggee noppalu ci xam mooy kan tuddi ko li mu wax ne moom la ndax am na foofu boo fa duggee génn fa day jafe abdullahi wa xadimi rasulihi la tudd ci misaal bu doon am li nga ko doon wutal aw sant ca biir la wax ne moom la tudd mooy abdullahi la tudd xaadimu rasul sant kooku nag ak feeñam jamono ci ñu mën koo gis am na ñu fekk mm-hmm. bi mu noppi bi ñu ko noppee gis ba mu déwét am na ñu mu fi bàyyi. waaw dañ ko noppee gis. waaye bi mu bi mu bi mu feeñee. ba ñu ko noppee gis li mu fi jëf kenn jëf ko fi. li mu fi wax kenn waxu ko fi. li mu fi mënee kenn mënu ko fi te kenn du ko fi mënaat. kooku mooy waajur Cheikh Mamadou Fadal. Mm-hmm. mooy ki nga xam ne moom lañ daan wax. mom la seigne fallu beggol lol ba daan ko tuddee borom barak bi ngir ngir fonk turu ak fonk jëmm ja ya. moy ki nga xamne ne suñ dëdd moom képp moo ci mën dara ndax daana wax seigne sut nako lolou ñu wax lolou ñu wax fatou ndax ragal ngeen ko seigne sut nako mo ñu tee nelaw mu ne ko ragal ngeen lu ma ta ragal siem sut ne dënn ba yàgg mu ne ko waaye Mbàkke yaakaar nañ la fa de sëñ bi moom ne ko yaakaar ngeen fukk ma ta yaakaar dam na ko képp ku ci sax ci li ma bëgg te nekk ca loolu ñu naan diw suuf tiim na ko suuf bu fekkee sax nga ci la ma bëgg yow moo nee suuf du la tiim maa lay tiim loolu mosuma dégg ku ko wax te li wax danaa ko waxal yow xiyam mooy ki nga xam ne moo jaayoon léppam jox ko yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xam ne mu jàkkaarloog boroomam jëflanteeg moom ba boroomam joxoon ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dala ni allahu ala muhammadi kon yàlla moo ko tegtal fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nekk naa yonent ba ci jomam ak fullaam ak faydaam ak ak farloom di jëflante moom di jëflante moom moom ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàppaat ci loxo mi yóbbu ci boroomam waxaa dani muhammadun mooy ki nga xam ne moom képp lees ma sa dégg mu ne ni def téeram yàlla bi kenn defe ko ko kansil kitaabu mm. wal xadiisu mm-hmm. wal adab laa jamxu fiddatin wala jamxu sahab kookoy ki nga xam ne mm. su ma saa kàbbar su la neexee jëlub gobar ab paaka mm-hmm. tiim yaram wala ñu wax aw yaram ci moom di dagg te du ko yëg ndax jëmmi boromam jëm jàkkaar lool kookoy ki nga xam ne rek moom la yàlla mo mo jaraloon moom la bakkanam jaraloon borom moom la moom la yàlla jaraloon bakkanam ba tax mu def yu bari yoo xam ne nit def na ko bakkanam des ca mhm. mu def ko féete yàlla ngeneel yooyu nag moo la ci moom ba tax keroog bi cheikh mahamadul fadal seeñee mu ne wa anal fadala bi yadillah yutihi man yasa sëñ tubaab moomu nag nga xam ne suñ lépp ak suñ fépp ak suñ yëpp ci biir ñoŋam ci la ne eh, mooy ki nga xam ne jaamu yàlla gum ne pat suñu borom lijjanti kooka. Hmm? nga ko wax si Youssouf Diaté. Hmm? àgg naag sama borom foo xam ne jaamu yàlla gu ma ne pat suñu borom lijjanti kooka. Hmm. foofu la àgg ci borom lépp lu ñu ne suñ tubaa àgg na fa ak am ca looy naat table sa borom. mbaa boog am nga loo yaakaar ne kon suñu borom tële na ko ndax suñ tubaa lépp lu ne am naa ko rek nee na yàlla am ko jox ah. soo amee looy naat table kon day mel ne kon yàlla amul loola. te yàlla peg na lépp kon. tey kooka. ci jëm ju ñu wax Ahmadou Bamba la tuddoon ci ak feeñam. am lu muy jëflanteeg boromam di jëflanteeg boromam di jëflanteeg moom ba mujj tudd Abdullahi jël Abdullahi googu yow yëkkoo ko wékkoo ko ba mujj tudd Xaadimu Rasulullahi ba mu demee ba suñu borom foog mosam mu def yëpp ko takk ci loxoom. mbindeef yi ci boppam wutal ko ay tur bari njariñ ñàkk sikk loolu yëpp ginnaaw bu bi nga xamee suñu borom jox na ko mosag mu def fii ci la loolu feeñ baa njariñ ñàkk sikk ak yeneen tur yu bare bare bare bare bare bare daj dëpp kooku nag moom moo ñu seex Muhammadul Faadal ak ay rakkam ak i magam ndax kon njabootu suñ tubaab boo doon waxtaan ci siñ siñ fallu nii jàppal ne yaa ngi waxtaan li tàmbalee ci Cheikh Mamadou Moussa ba ñëpp nag koo ci jël rek mm. am na lum lum loo xam ne boo leen dajale ñoom ñëpp bi ndax ci sëñ bi xajut ci kenn sëñ tubaab nga xam ne am na ñu koy woowee borom njaareem am ñu koy woowee borom tuba ñaa ko borom géej ñaa borom gabam te yooyu yépp ci say yi bu ñëwee foo ko fekk waaye himma ba mu waxoon moo ko may loolu yitte ju rëy ju kawe ji nga xam ne moom la jëflante boromam moo dem ba lim lim fi fekk ci say lim ti tudd tudd ko ca ndax jëflante naag loola ndax daan wax naan li ñu wax laylatul xadar sax benn rek la ci at mi mooy guddi laylatul xadar waaye moom guddeem yëpp laylatul xadar la ndax moo ñaanoon borom ne ko wacc xal layaali ka layaalil xadri li mu wut ci laylatul xadar moom suñu tubaab moom bis bu nekk da koy am ndax nee ni bis boo bis boobaa sàkk ci boroomam loola nee bis bu nekk ba mu ñëwee ak saa su nekk ba mu ak waxtu wu nekk ba mu ñëwee damaa jëflanteeg moom loo xam ne ba mu ba mu ba mu sëfee daal si ba pare bu newee ko may ma Amadou borom suñu borom fa bu yëpp jox mu jëflante ak ñoom kookee nag ci biir nammeel ak suñu borom gi ndax Serigne Mouhamadou Khayri nettali na ma ne ma dafa mos a ñëw ci suñu am sotu di ko laaj ci waa kër Sëñ yi ne ko man naa moom bëggoon laaj ci doomi Sëñ Tuubaa yi waaye suñu am sotu nee suñu am sotu day jug ba xaw ko xaw ko kii dafa sonn woon waaye di ko xaw ba max ne ko bu ma déggati nga naan doomi Sëñ Tuubaa lo ko waxe hmm. dan ko kuku yul ay eh, dom ay eh, cief kala yor oh. oh dan ko mu roxeer mu nako mbacke mu nako sama prime nek bi mu ne nga ragal señ tuba ak nax mi ko wër dan ko doomu adamé doomu adama dama ko eh, ñanaaw ragal nañ señ tuba mm-hmm. ndeng menti ragal nañ señ tuba mm-hmm. ndox yi sax ragal nañ señ tuba nga xol ba misal ni deg ndoxuma gi gi ci dox garab yi ya, ragal lañ suñ tuba bañ ko takké ci garab ga garab ga defu dara suuf ci sax ragal na suñ tuba dokk ba wax nako ko adam mu xamul dara mo ñu ne suñ tuba ba ne kooku ay cëf ka la yor daanaka ba muy dem dafa jëm sori ta la suñu borom mi koy soti leer gi mu ko ci soti gi mu ko koy soti ba mu demee ba diis mënta dem ci ci la fop lam yoron wékki ko fop ndab lu set lu yaatu soti ko ci mu cheikh mamadou mustafa mu woyof ba mëna dem ba mu jàllate diir la demaat ba diis gan ba àgg foo xam ne bu doon tey jii ku doon dox la dañu naan mënatut dox ndax diisaay bi li mu sëf diis na te mënut a ñàkk dem mu wékkiwaat la yoroon wékk ko Cheikh Mouhamadou Fadal kenn ku ci nekk ci ñoom sëñ sutu nee na kenn ku nekk xaal bi sëñ sëñ bi toppoon sëñ sëñ bi tolloon bi ngay feeñ xaal boobu moo feeñ ci yow. xaal boobu mu feeñ ci yow. Cheikh mu Moustapha bi muy sëñ bi si feeñ. bi bi bi mu feeñ boo fekkee ne nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaxasoog moom xarfaan bi xarfin moo tax mu yoroon ci ja bi Cheikh Mamadou Fadal bi feeñ boobu mi ngi ci diggante mun ko mën a moo tax wa tax keroog ba mu ko yeewee dina bu mu takk téere bu ko kenn takkal téere moom mëneelu yàlla la indaale te yàllaa koy aar kooku nag nga xam ne bu ñu ko nag mooma hmm. dara du ko jar ci hmm. lenn <laughs> kooku yéen moom la ñu xam ne mooy mooy waajuru Cheikh Mamadou Fadal Cheikh Bass Cheikh Mamadou Fadal moomu waaw waaw gane aduna hmm. ci daru salam ci daru salam teel ma fofu ci lañuy ñew legi ndax cheikh bass nak mom lay dama ka deg mu ne kenn du ahmadou borom turi yi borom tour yi bari te te te rafet lool mhm. saa loo <laughs> ci indi mën ta ñak wala ñoo jall cheikh mahamadou fadal waaw seigne touba mom dafa yëmut tak kenn ci lenn mhm. dinaay faral di wax ni eh, ku ñuy tuddu di tuddu seigne touba waxtaan ak say mbokk hmm? ndax kon sax dañ la ci génné ma seigne touba mu daawul morom ci hmm. dara xam naa suñ ci duggee dañ ci xaabaabal. waaw te sëñ Amsatu tàmbali na ci Serigne Touba. Mhm. léegi dimbali na ma ndax euh, li ma bëgg a wax ci sëñ fàllu euh, su fekkoon ni laytaay yuñ ko ci jëmm ju tedd gi wax ni ñu mooy waajuram. man nga ni li may wax nekkut fii. waaye ku mel ni kii mu wax. Mhm. buñ la ko bu ku mu wax ne la moo meññ kii da xam ne mën naa nekk. sëñ Fallu nag day sëriñ Touba la ma cee ñëw damay tàmbali ci tur wi. Mhm. ndax sëñ Fallu dafa wax léegi ne sëñ Touba euh, ay cëf ka la yor. Mhm. fu mu toll rek mu dindi cëf ka sëf ko kenn ah. mën a weyaat. Mhm. dafa mel ni bi muy toll ci Cheikh Momadou Fadal dafa fekk mu sës rikk ci boroomam. waskur xuruufee bi qadri saati. fii madxi man qurriba bi lazaati. foofu la sëñ Fallu feeñee. sama bàyyi nee na. suñ borom wax ko ne ko tudde ma ko te bàyyee ma ko Cheikh Mamadou Moustapha mu ne ko tudde ko yonent bi te yoral ma ko kii mu ne ko tudde ma ko te ma ko moo tax ku téere léegi tur yi tur yi xam nga tur dafay répondre ci jëmm mhm. nan la tudd fadlullaahi jëmm sëñ Fallu mooy koo xam ne kenn mënu koo ñàkk ku ko amuti da ngay perte mhm. maanaam jëmmi sëñ Fallu ak melom jëmmam moy turam ak melom turam moy fatlullah melom moy rahmatullahi mhm. ñaar yi ku ko amul da ngay perte aduna ak alakhirah alquran ko wax ah. laula fadlullah alaykum wa rahmatuhu lakuntum min alkhasirin kon amul ku meuna ñak fadlullah mhm. ki yor turu yalla diko werd yor jukki alquran diko durus ki jang qasida ki ki ki saraxé lepp lenn kep lay bëgg li ñuy def lepp lenn la ci bëgg moy <laughs> fi ne boo seetloo saxaaba yi sax bi ñuy gàddaay jógee madinatul makka jëm madinatul munawwara bàyyi seen i soxna tëj seen i kër bàyyi seen lépp ginnaaw war a dem ci ak tumuranke lenn képp lañ doon sàkku muy fadlullaahi eh. lil fuqaraa il muhaajiriina lazina uxrijoo min diyaarihim wa amwaalihim yabtaxuuna lun wa amwaalihim lan lañ doon sàkku yabtaxuuna fadlan min allaahi wa ridwaanan eh, bu dul woon ak fadlullaahi itam ñooy topp yàlla ñi ci ëpp ñëpp seytaane la ñuy topp nga xam ni nit dina jug war a topp seytaane lenn képp moo mën a tax mu dëpp jaar ci yoonu siraatal mustaqim mooy fadlullaahi dabaatal ko walaw laa fadlullah aleykum wa rahmatuhu la tabaatum sheytaana illa qalilan fadlullahi itam menn mbindeef mënu koo ñàkk ndax wa inna allaha la zu fadlin ala annaasi walakin aktarahum la yaskuruun léeg-léeg nga yàlla mooy jox ak sell ku ko soob waaye fi mu ne bu fadlullahi amutoon kenn du mën a sell digganteem ak boromam wala wala fadlullahi aleykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin allah yuzakki man yashaau wallahu samiun alim yàlla moom yépp waaye ci biir moom gi moom lépp dafa am yum gën a moomale boppam bañ koy askanale ci boromam loola fadlullahi da cee bokk fi mu yàllaa la moom moom ma moom ñii ba ci caméra beeg lépp waaye am na lu mu gën a moomale boppam te loolu mooy fadlullahi loolu tax mu ne qul innal fadla bi yadillahi kon loolu wuute amu ci moom wuute amul ci ne ngëneel ci loxo yàlla la nekk la ca toppit wuute amu ci muy yu'ti man yashaa moo ko jox ko ko soob léegi yàlla mi nga xam ni mooy jox ngëneel ku ko soob ndax moo ko moom ndax wallaahu sul fadlil azim mm-hmm. suñu borom moom mu yëkkati ngëneel jox Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul kon day mel ni li ñëpp doon xëccoo góor yàlla yi fi jaar ñépp kenn ku ci nekk bëggoon nga fadlullaahi yàlla ni ko coppet kenn ku nekk jaar fa ngay jaar bu fekkoon marché bu ñuy xëccoo la kenn ku nekk bind def la ngay war a def <laughs> yàlla xool mbind yëpp xam ni kenn rek a ci attan fadlullaahi muy Sëriñ Tuubaa mu yëkkati ko jox ko <laughs> waaye seetlul nag hmm. gis nga euh, sëñ Alioune sëñ Fallou moom wax dëgg yàlla. Mm-hmm. dafa amut morom. morom de. du ci lenn nag. gis nga boo génne woon fii suñu borom may la nga wër ñeenti continent yëpp. continent yi adduna bi yëpp. ci guddi gi ñu présenté la nit ñi mës a wàcc jamono. présenté la yeneen mbindeef yëpp kenn ku nekk ñu wax la ay jikkoom wax la ay meloom wax la fu mu yegg ci boromam bu noppee ñu présenté la Cheikh Mamadou Fadal boo dellusiwaatee fii di nga yëkkat loxo waat yàlla ni mu romb sëñ Fallou amut ci kaw لا لا لا سيغ مودو توري واخني فشرواك في القلق فشرواك في ارجاء الدنيا فلم يكن من الخلق من ناباك في اي خارتي نينا القاره موي كونتينا نينا كونتينا ييب بوكو وورون با نجيخ فبيدا وسودا نكسو رحس قادعين قالوا فانت المستحق الزعامه نينا نيت ني واخني ak nit ñu ñuul ñi ñëpp ko ci gis sëñ Fallou jatt nga sa bopp ci suuf toroxlu xamal ko ni ko yow képp yaay ki mat njiit kon moroomum Cheikh Mamadou Fadal Mbacké amul ci kaw suuf. amul morom de. ak ah, déet amul morom nag. <laughs> dafa feeñ ci turam. kon tur wi rek amul kenn koo xam ñàkk na ci morom. waaw. weer yi nga xamante ni ci la ko yàlla jox Serigne Touba. bala ngaa ñëw si weer wi <laughs> man de tey fu ne nii moom. fi mu ne baax na nag. waaw ñoom fi mu ne baax na de. ndax ndax dafa mel ne ah, ñu ngi ci yoon wi. man léegi te xam naa fi ñu jëm fi ñu bëgg nañ fa yegg moom. na dox. maa la wax li maa ngi ñëw léegi. waaw dafa indi lu yéeme si tur yi. Mm-hmm. nit ko. Mm-hmm. mu ñëwaat si si sëñ Amsatou. Mm-hmm. ndax maanaam ni ñu misaalalee ak ni mu ñu ni ñu ni ñu ni mu ñu jàngatalee. borom barab bi. Cheikh Ahmadoul Khadim. Cheikhul Khadim. li nga xamante ni dégg nga mooy Abdullahi wa xaadim rasulihi. Hmm. kookooy meññ Cheikh Mouhamadou Fadal. Fadal mi nga xamante ni. Hmm. mooy borom gën a lii. xanaa xamul am na koo xam ne. waaw dëkk ci jumaa ji. Hmm. mas na maa na ma. ci nekkoon ñi ñi yàgg ci jotaay suñu fan la bokk lool. sëñ bi mas naa toog ne leen. fi ñu sëñ Tuubaa fekk. boo nañ ci ñoñam. nañu kaay leen gunge ma ci liggéey bi. keneen ku ñu fa fekkoon dañoo duñ dawlu. am fu leen am na fu leen sëñ bi fekk waaw am na fu leen sëñ bi fekk ba indi leen ba indi leen waaw moo tax Cheikh Ibra xam li xew maa la wax li dama si ñëw waaw si gën ak hmm. si ndax hmm. ubbi bu am solo ñu ngi siy ñëwaat léegi sëñ am satu gën ak jamono seex Mouhamadou Fadel waaw jërëjëf gën ak jamono Cheikh hmm. euh, mooy ci ñi ko ñëpp rek euh, weer wu tedd muy weer wi nekk di kasu rajab ñaar fukki fan ak juróom-ñaar di di euh, mille trois cent six hijriya mille huit cent quatre-vingt-huit am na sax ñu wax euh, quatre-vingt-six ci milaadi yaa mhm. euh, mook si mu wax si Mamadou Moussa mhm. wax nañ ne juróom benn weer wala juróom ñaari weer mhm. Eh, lañ rawante ak fukki fan ak fukki fan ak juróom ñaar wala ñaar fukki fan ak juróom ñaar mu feeñ ci daru salaam mu am waajur wu teddaat muy uh-huh. soxna aw busu suñu maam aw busu mu koy uh-huh. tedd ndax soxna aw busu boo koy xool uh-huh. ci wàllu mbokk mënees na koo wax ci doomi nijaay sëriñ bi ndax sëñ Bousso bi mooy waajuram euh, soxna Awa Bousso moomu mooy waajuru Cheikh Mouhamadul Fadal bokk ak soxna Mariama Kunta euh, wax nañ ne ci njabootu sëriñ bu jigéen ji njaboot sëriñ bëgg yi nga xam ne ay soxna lañ ki ci gane adduna Tuubaa mooy waajuru sëñ Maxtaar Silla waaye sëñ Fàllu Silla waaw Cheikh Mahamadou Fadal moom mun a gane adduna ci bésu Kazu Rajab dégg naa ñu ci ay dettali yu bari ñu wax ne aaya boobu yi nga xam ne moom la suñ bas doon wax léegi ci subhaanala si asra bi xabdihi laylan mhm. ndax man damay kiyal suñ bas rek <laughs> dafa wax ne bis boobu ci la yonente bi sallallahu alayhi bi alihi wa sahbihi mhm. wuti boromam mhm. ci lañ ko joxe julli juróom yooyu suñ fallu ca xoromu ga ak xam-xam ba xekkam ba daan wax naan yonente bi dana lay mën a jëpp <laughs> waaw waaye nag wax nañ ne daana ca teg naan bi ma nee cëpp nag indi na jëgg hmm. jëgg hmm. ku farlu nag hmm. kenn du la ëppale ci jëgg bi jëgg ba nag mooy lii sëñ fàllu sëñ bas wax léegi mooy fàddu loolu la xëj ba ma àdduna foofu ci Daaru Salaam te Daaru bokk ci dëkk yi sëñ bi fonkoon lool bokk ci dëkk yi mu njëkk a sant itam ndax Mbàkke Mbàkke lu jógee Eh, jëm Daaru Salaam te bind na loo xam ne bi mu koy bind mi ngi Mbàkke te boobu Daaru Salaam mbind ma Daaru Salaam ko doxam ak Tuubaa mu cay wax Daaru Salaam ak ni mu ko ñaane boroomam ak li mu bëgg boroomam def ko fa defal ko fa faak ak eh, eh, mook Tuubaa ak nu mu bëgg jaamu boroomam ci imaan ak islaam ak ihsaan di ñaan boroomam kon bu fekkente ne Sëñ Fallu day fadlu looy ba noppi feeñu Daaru Salaam jëgg boobu day daal di feeñaat bi mu loolu loolu wax nañ ne moo waral Cheikh Mamadou Fadal guddi Kazu Rajab fu masaa ñëwee guddi googu day fanaanee Daaru Salaam ngir màggal guddi googu mu feeñee boobu Daaru Salaam bu masaana dem mu dundal fa guddi Kazu Rajab ba fajar nag wala ji bu masaa xëy bu ñëw day jaar kër Sëñ Afe ñoom mi nga xam ne moom moom ñoo bokk waajur. soxna soxna maam aw bu sub. Moussa ne ñëw aaf jaar fa euh, wax nañ ne am na lu mel ne cere. ñu mm-hmm. daan jaxaseeg soow. Mm-hmm. ñu naan ko tuddee dàkkara. ñu mm-hmm. ko daan tuddee. Euh, dàkkara. dàkkara lañ ko daan wax. Euh, mas na ñëw boo xam ne dafa mel ni daa toog ak sëñ aaf yi waxtaan. mu mel ne xam naa daal mel ne dañoo fàtte daakar ji <laughs> ci waxinam rek waxin yu xorom ya te xekkam nekk ci biir mu ne hal <laughs> xam na xam ne mudakkir moom fàttali la mm-hmm. Mm-hmm. mu ne hal min mudakkir mm-hmm. si yaafe yi ca dégg ga ak xam-xam ba moom it mu daal di jóg daal di dem wuti daakar jol ji indi <laughs> daan ne ko waa daakar baax na umma waaw <laughs> daa mel ni de xam naa buñ doon nañ ko fàttali it mel na fàttaliku nañ <laughs> bi mu matee daal jàng. Mhm. sëñ bi moo ko dalalal boppam. Mhm. jàngal ko ab diir. Mhm. jox ko suñu daam Abdourahman. suñu daam Abdourahman loo. ma nga xam ne. mooy ka daan këlamti ko téeméeri rakaaya. te daawul yàq dara ci jaamu yàllaam. xam nga dañ daan wax naan danaan fanaanee ja danaan fanaanee téeméeri rakka téeméeri rakka yi ak jaayante woon la digganteem ak sëñ Tuubaa waaw bukkut ak jaamu yàlla am gi mu daan def kooku sëñ Daam Abdourahmaan Lo mooy ka nga xam ne sëñ Tuubaa ko defaroon ci ay noppam mm-hmm. du dégg lu yàlla lu leeru yàlla dawut tege mm-hmm. bëtam dawut tege ci loolu xar yàlla suñ borom da ko defaroon kiiraay boo xam ne. Hmm. bu naqar yàlla bu nekkee ne moom du ko gis. suñ ko dee wax ci biir suñ ko dee wax ci biir du ko dégg. <laughs> kooku mooy suñu daam Abdourahmane Lo. Eh, neewaa na ci njabootu suñ Tuubaa gi ku sukkut ci kanamam mën na la meel meel meel nangam. kooku Cheikh Mamadou Fadal ca la jaar bu mu fa jógee. Hmm. mu joxaat ko itam ka nga xam ne. Hmm. moom la si suñ suñ waxoon ne ko. yaay sama loxoy ndeyjoor mooy maam Thierno Birahim. ci ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk ci ñoom seen xam-xam. ak mm-hmm. seen mm-hmm. kenn nattable wu ko. Mm-hmm. Euh, def la def ca moom ndax ginnaaw bi nga xamee ne sëñ baa ngi dem ci géej yëpp moom la ko bàyyal. moog Cheikh Mamadou Moussa. def ca ñoom lam def ca ñoom. la ko ci lépp def ko ci wàllu xam itam. mamor jaara mi ñu wax magi mag te kuñ ne magi mag kam mag ba tax ñu naa ko magi mag mom ñu ko mag mag la te maam ju mamor jaara euh des na lu bari mm. ci mom les xam mm-hmm. ni lu xadim bi sëñ Tuubaa da koo tarif ba noppi Maamoor Jaara toog ci néeg bala di tarif mën nañu baaxee xadim bi te génnagul nekk sëñ bi ni ko sëñ bi tarifee sëñ bi yëkkati mën nañu baaxee xadim bi yónnee ko Maamoor Jaara mu fekk nag mu ngay tari koy ah. borom saam kooku ñoom ñaar amoon nañu demee kookee Cheikh Mamadou Fall jaar na ci moom Cheikh Bass laa bëgg bu ñëwee dana am bunt bu mu mën a jaar ba Mm-hmm. am na lay bu wër ci mo wax ci cheikh mamadou fadal ci xam xam mag mën nal rek mm-hmm. ci ñoom ñu la jaar bu nappi di najlul khadim moy mm-hmm. doomi cheikhul khadim la bu jaaré ci ñoom ñu nak lolu wa wa ko sun tuba yépp la sun fal da leen yobale nak kenn ko ci nek bi nga xamé sa nday jor xamé sa chamoy ci nga jaayante ak suñ tuba ba ñu ci ginaaw gi gi sax ñu dañoo jaayanteeg sëñ Tuubaa Cheikh Abdou tok na ci Touba Belal julli tiwes ba nopi ni assalamu alaykum dan ëddee sëñ Tuubaa <laughs> est-ce ñafa ne di xol kenn ko nek di xol sa morom mu ne maru di ñu ko dul wax man Abdou Lahad de ba ma xamee ne li ba ma xamee bu wér na lii sama jor la mu wér ma ne lii sama chamoy sama tur sama tur bu wér ma Abdou Lahad mu mu ne alaykum ci julli te néew mu ëddee sëñ Tuubaa daal ñu dañuy sëgg ak sigi rek ba julli jotté mom képp julli won te suñ julli yi dara baxu ci buñ ci yaakaaree duñ dem fenn te muñ ko ko joxee déywu ko dara te am na pexem defar ko ba mu baax mu delloo ñu ko. <laughs> kon kooku jaayante woon na. suñ Tuubaa suñ suñ Cheikh Mouhamadou Fadal nag. jataay boobu nga xam ne ca sëñ bi doon waxee. la wax. ba mu wax noonu ma ci bàyyi kenn. du ma ci nijaay kenn du ci magi kenn. ca jataay boobu mu fi ñëw fekk na mu indi xel mu indaale xelum xelum. Mm-hmm. jaayante ga ndax boobu nekk na ca moom kon. booba nekk na ca moom. waaye loolu dëkk yu ko foofa kon. Mm. wàccaay wa yàgg na. fekk xel ma it la tax nga xam ne rëy na. Mm-hmm. mooy bi mu ko jaayantee ba noppi. Mm-hmm. ba sëñ bi nangoo ko ko. Mm-hmm. ya ayyuha murtaja hmm? bi mu ko jaayante ba noppi ba mu jox ko ko. ba nga xam ne jaay na ko moom jaay jaay nga ma ni jënd naa ko. Mm-hmm. sëñ Fallu sëñ bi jaay na ko jaay am na lu mu jaay sëñ bi jënd ko ba jox ko li mu jënd moom. ñu mm-hmm. ngi mu téye ci loxo mu jëlaat ko nag. Mm-hmm. ne ko léegi lii nga xam ne maa ko moom moom. lu ma neex laa koy def. maa ko jëlaat nag joxaat la ko addiya. <laughs> min baxdi mastaraytumuha minni waaye xaada googu yi mu dugg mu tudd ci biir bayit ba mhm. si Moustapha si mhm. mu daan jàng xasida mu roog moom wax nañ ne nettali leen ba tàyyi nee na suñ fallu toog na ba tàyyi suñ fallu di wax ne mhm. xarqaxaada googu mu mu wax mu ca boole nee na lu am lu mu rëcc rek loolu la micro bi jëlal jëlal jëlal micro waaw li nga jëlaale jëlal rek yow moom sëñ Bass moom barki démb bu baat boobu nga wax sama baay nettali na ma ko barki démb te ci làmmiñu Cheikh Mamadou Fadal la ko déggee nee na nee na nee na mettalu ma ko ay yooni yooni yoon ci ne day bu amee lu muy rëccu rek mooy gàll googu mu gàlloon li kay ji xarqaxaada googu mm-hmm. daan na waaye nag ku ne xam ne la xarqaxaada baax na mm-hmm. ndax buum la guy ñoddee ngir mën a xeetali nit ndax yonte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam amna fo xamne bam fa tolle mhm. ay muji sallallahu la borom roof ci mom mhm. mu koy def ñu diko gëm suñ fa nit am na ñoo xam ne seen bëgg ko ak gëm ko da leen won ñu gis mu xëcc leen ñu ñew ta suñu yobañ ñoo bañ mhm. noonu la leen def mom <laughs> ndax da leen won bu len waxi ne ndox am ni nañ waaye léeg-léeg dañu maa dégg ñu naan lagate kese lagate kese nu ko bay waaw mu ne ak kanen ku bay loolu daan wax ak karim kur béykat waaye waaw nit njaay mii boo ko waxoon la la lagatu kese kat moom bu ci bëtam ne tàpp na nga ngàbbee leget ga lay xam ne ba xam dara nga jaam déet waaw moo tax bu bu dikkee bu la bu la waxee waxi nit nga bu ko wan su ko defee da nga koy daal di gëm fa saa sa te doo ko sañ a bañ mu liggéey loola suñ tubaa te doo ko sañ bañ te loolu lam ciy jublu xarka xaada boobu lañ ci jubloo ndeke ab ab ab dokk la ci jublu woon boo xam ne mhm. ku war a liggéeyal Sëñ Tuubaa te waxe kese képp mënu koo ñoddi moo ñoddi ko ci xarka xaada boobu ngir mu mën a liggéeyal Sëñ waaye nekkutoon lenn loo xam ne daa nekkoon malaan moom da koy son noonu la fobe woon nag léppam jox ko Sëñ Tuubaa moom Sëñ Fall mhm. léppam nekk na fi ba jógee fi ci néegum ñax la dëkk ni nga tax jumaa ji waaw am na yeneen yu bëree bëri yoo xam ne jàpp ma ne sax man na fee xaj. Hmm? waaw moom daal wante xajal leen ko si. waaye hmm. xam-xam bu mag ba. Hmm. ñu ko jàngal. ñu ko jàngal def ci ñoom xam def ci ñoom moom xam-xam. suñu fallu amul ku ko ëpp xam-xam ci àdduna. mbaa boo xamuñu ko ci li ñu jàng te xam ko dàq koo way gën koo xam aw wayin. gën ko cee gaaw ba noppi mu mel ne. Eh, loolu suñu tubaab di wax nag yuquudu lii kun fayakuunu xaaj yi mhm. day mel ne làmmiñ wi mhm. maanaam moom saa sooy wax mi ngi yàkkamti nga loo bar bar bar bar ma nga yàkkamti ba nga ne daaneel ba mu tontu la fa saas te lam lay mhm. te boo ko xoolee ci saye da nga koy gis boo ko xoolee ci baatin da nga koy gis kooku moom jaayante gam jaayante woon ak suñu tubaab tey la ko suñu tubaab waxoon mm. mm-hmm. ca jaayante ga mm. ndax Cheikh Mamadou Fadal wax nañ ne siñ Modou Moustapha mm. ak mom Samone Fall sëñ bi leen woo njaarim ñu wax sëñ wax sëñ Mourou Moussa ne ko dikki ngeen mu ne ko waaw mu ne ko dem leen ca néeg sangam bu ngeen demé na ngeen fa dugg tok fa xaar ma Mamadou Moussa toogal ca wetuk penku ga Mamadou Fall toogal ci wetu sawu ga te bu ngeen fa laaj taalug niitu te bobu néegi daal lëndëm digg ba bu fa bu ngeen fa jaar mmh. ne ne na bi sëñ Mourou Moussa dikkee ubbi bunt bi bu ñu mu xaw lëndam suñ fal ni ko laamatu rek de waaye liñ bëgg dañ ko def moom laamatu rek de mm-hmm. waaye liñ bëgg dañ ko def moom daal di daal di raam wuti wetuk ci wetuk ci bi ci daal di bismillah daal dugg ci bi moo sëñ bi toog ci digg bi daal di ngeen dikk ngeen ñu ko ah, muy daal lu mu bëgg waxtaan ak dama leen wax kan ci man ak lu mu bëgg ci yéen dama wàccoog yéen fii ak fa ñu jëm daal leen ba wutal leen ku ngeen gënul bàyyi fii ak fa ñu jëm kooku gënu ngeen bàyyi. te loolu wér loolu la ñu ko sëñ bi waxee. ma fexe ba wutal leen ay tur yoo xam ne. bu ngeen demoon ba jannatul firdawsi bu ngeen fa duggee ni asalaamaaleykum ñu ne waaleykum salaam ki ñu cay laaj aw turam mu leen ko su ñu ko gënul aw tur gënu leen tur. ma taqale leen nag barke boo xam ne mënu leen ko jeexal àdduna ak àlaxira mu doog leen sant ab liggéey. sëñ Fallu leen boobu foofu la aw fitam jóge nga xam ne kon fokk mu liggéey moom. kon. lool moom. am njàngam te sax bi may wax léegi askan wi. Mm-hmm. soxna Awa Bousso. ay nijaayam moom Cheikh Mamadou Fadal. Mm-hmm. ñan ñooy ay nijaayam. Mm-hmm. ndax boo ci tuddee Sëñ Mbàkke Bousso du doy. sëñ Mbàkke Bousso mi nga xam ne. mo borom fit ba ak lewet ga mhm. ak ñene ga ak dal ga mhm. ak xam ga ak jar ga mhm. nek xam bu noppi ne jaar ak bu noppi yit nek mutawassit ta te ko dara ci passifam suñ digënté ma suñ wa suñ jubaa nawloo won ko koku boo ko tuddoon rek ci ni yaangi ci suñ fallu mu doy sekk waaye suñ maktar busu mu mag ma. kon xam ak wilaayam moom it. sëñ Cheikh Bousso muy taawam sëñ Bousso bi. ñun ñëpp ay nijaay lañ ci Cheikh Mamadou Fall. te ñooñu ñëpp kenn ku nekk ci ñoom sangob jamono sangob jamono nga. te ñun ñëpp nag boo leen boo leen dàqee ñun ñëpp Sayyidatuna Fatima fa lañ jëm. Hmm? waaw. Chérif. ñoom ñëpp ay tànneef lañ. daanaka maris naa ab bu bayit woowu. nekk ci ci ci ci ci suma jumut hamsiya nasabun taxsabul xulaa bi xulaahu xaladatha nujuumuha al jawsaw ndax ñun ñëpp ay karim lañ ibnul karim lañ ibnul karim lañ ibnul karim ba ci sayyidina Fatima moo tax Cheikh Mamadou Fadal moo tax mu mu mu mu mu daa wax naan dama ne dégg ne pekk dama ne dégg mooy dégg mooy fu ma taxaw kenn mënu ma fee jël te bëggu ma fee jóg pekk mooy damaa fees dell ba amatuñ lu ñu lu ñu roxal fenn. Eh, moo tax eh. dama daan dama ne dégg ba noppi ne teg waaw dama ne dégg dama ne dégg ba noppi ne pekk. kooku nag moo jaayanteeg Sëñ Tuubaa ginnaaw bu mu jëlee ak njureelam jënde ko ak taalibe loolu moom kenn mus ko dégg mu fubaat taalibe googee ginnaaw moo ko moom mu fubaat taalibe defaat ko addiye maanaam mu fubaat eh, liñ ko jaayam ci njëg ci njëgu léegi léegi jaay nga ma ba ma jënd ko. mu mm. fabaat loolu def ko def ko def ko addiya. te bi ñu sañ ci ndindi. ñu sañ ci ndindi. nekk fa ak euh, euh, sëñ Biraye Ndiaye. day sëñ Ndiaye. ak mboolem mag ñi fa nekkoon nekkaloon. daa saxaloon leen suñ Tuubaa ab tool. ak mu jot nawet bi. wenn fépp ñuy dugg ci kër gi am lépp suñ Tuubaa lu ko yiti njariñ. te nee nawet bu wàcc day ànd ko kaamil loolu waraloon kaamil yi bari nawet bu wàcc rek am na ko kaamil boo xam ne bind na ko suqi ko maas ko te aw araf demu ca. ci loxo bu yóbbu bu yóbbu addee ji yóbbaale kaamil. dégg loolu. moom dafa sakkum tuuti ngërëmul Sëñ Tuubaa moom ba am ko ba Sëñ Tuubaa gërëm ko ngërëm lu wóor moom. Mhm. moom Cheikh Mamadou Fadal moom la def moom. loolu waral. Mhm. yaatu gii mu yaatu. Mhm. ba da ngay dégg sax ñi ñu bari ñu naan ku ne am nga sëriñ waaye ku jàpp ko suñ fan loolu fadlullahi jama ko waral da am lu yor loo xam ne yi fi mbindee fii da caa ne te ba ko suñ tubaab di jox da ko joxaale ba ko jox da ko joxaale ci kalmi ba mu mujj bind mhm. ba mu ko bindee ba mu ko sa borom nee nga wax loo bëgg ñu defal la ko ci mhm. mu ne ko sama digg moom waa maa sama digg yow mu ne ko nee nga wax yow mu ne ko baax na naa ko wax mhm. ba mu dikkee mënoon naa wax lu ne waaye yërmande ja ak bëgg ñëpp texe ta xam ni bu bu bu sawar kenn du fa dugg hmm. moo tax mo ne suñ néewu ko ku la bëgg de ko xam sa tur yi hmm. loolu wax suñ tubaab hmm? li bëgg sama kay bi yaay mooy nga wax nga wax nga wax sama borom moom yi nee ko ma ci bëgg da moy na na na na na ko xam sa tur yi rek bu mu lakk eh, yërmande googu yaatu ko <laughs> ko bu fekkente ne mom moy doomi suñ tubaab nijaay mu cedd yu bax yi nek nonu mo nak mu boole ci ak jaayante lu mu def mën naa mën naa nekk. lu mu def rek mën naa nekk. moo tax lim fi nekk lépp ànd ak sëriñ bi. nekkuk sëriñ bi. di jaayeen jaayante ak moom di ko liggéeyal di ko liggéeyal. ba nañ nappee gis sëriñ bi. looloo waral fonk gi mu fonkoon sëriñ bi. foofu ñu dencoon sëriñ bi baraag bi fi nekkoon. daw tudd tur wi boroom baraag bi rek lay wax. wax nañ ne keroog bi nga xamee ne lu daw yaram bi nga xamee ne indi nañ sëriñ bi Touba. bari ko waajal. wax nañ ne day sukk ci kawam. ni ko ni nga dikke ni nga dikke hmm. tey. ni nga dikke waaw sëgg ci kawam. Hmm. tuur ay rongoñ am na kilifa gu ñëw di ko yëkkati mu ne waaye jooy ma dese. Hmm. do jooy ma dese bàyyi ma jooy. waaw. waaye. ba mu jógee. parce que booboo nga xam ne moom la amoon ci suñu tubaab. ba mu ne wëlbati rek da ko daal jox say moom Moussa. Eh, dégg jox ko bopam top ci ginaaw ne ko ya fi nek fi ya fi nek fe lo bëgg rek waxal. Mm. te lo bëgg mëna ne. Mm. top ci ginaaw jox ko bopam jox ko bopam ba Cheikh mamour mousfa won ko ginaaw mm-hmm. mu reey fa malan malan mbotam mu reey momé nak lan mm. waaw. ne ne ñepp ñëw ma boot. waaw kuy màtte kuy gàjje. Mm-hmm. ku nooy ak ku ku ñepp ñëpp ñu ñëw ma bot motax dañ ko am na ko ma sax ne ko yow da ngay bëgg ñu ne bëgge lu ko waral. Mm-hmm. mu ne ko mëna a seen bang bang rek. nit ñi ku mënta dékk seen i bang-bang duñ la teg fenn loolu duñ la bëgg. ak ñoo bëri bang maanaam dékk bang-bang yi nit ñi. moo tax nit ñi bang ba pare amal leen njariñ. ak ñoo bëri bang-bang. bi mu fa bee boppam nag jox ko Sëñ Tuubaa joxe ko noonu Sëñ Tuubaa. Mm-hmm. ba ci nekkul sëriñ bi. Mm-hmm. jaayante ko gi mu jaayante woon Sëñ Tuubaa. moom mm-hmm. la continuer continuer ko ba ba bàyyiwu ko ba mu noppee gi sëriñ bi bàyyiwu ko bi mu noppee gi sëriñ Mourou Moustapha xam ne mooy Sëñ Tuubaa yi taxul mu bàyyi ko mu koy joyal ci teel bi ak jumaay Sëñ Tuubaa ji ba keroog bi nga xamee ne mi ngi wàcc ab liggéey ma nga ci biir jaayante ga ba léegi dañu ko nga xam ne nga xam ne ci misaal mm. ci misaal mm-hmm. nit dana jaayantee dara mm-hmm. ba gisatoo loola mm-hmm. nga woyofal jaayante ga wala nga jàpp ne foofu la waroon a yem dàpp ne léegi ndigg li moom kaala woo moo ci des Cheikh Mamadou Fadal boo xoolee parcours maam carrière bi liñ la ci nettali ak li ñu ciy jàng boo ko xoolee da gis ne moom bi mu jaayantee da confirmer responsabilité am ci jaayante gi daa liggéeyal Sëñ Tuubaa ci ci ci jëmmi Sëñ Tuubaa ji liggéeyal Sëñ Tuubaa ci jëmmi Sëñ Tuubaa yi ba gisatul jëmmi Sëñ Tuubaa ji nii ci saayir ni ñu koy gisee mu jooyal da jëmmi Sëñ Tuubaa ji jëmmi Sëñ Muru Mustafaa ji liggéeyal Sëñ Muru Mustafaa liggéeyal Sëñ Muru Mustafaa ba gisatul Sëñ Muru Mustafaa nga def fab jëmmi Sëñ Tuubaa joojee ak jëmmi Sëñ Muru Mustafaa ba jooyal ko ci jumaa ji ak waa kër Sëñ Tuubaa ak dongay Sëñ Tuubaa ak dëkkub Sëñ Tuubaa nga xam ne lenn lu ci nekk tey jii boo ci tuddoon Sëñ Fallu def na ca loo xam ne jaayante googu mu jaayante woon Sëñ Tuubaa moom la doon bàyyi xel moo tax mu demee noonu. jumaa ji bi mu koy tabax. waaw lu am. Mhm. maam xam nga mënoon na yor dara nii sax di ko léeg-léeg am lu mu denc wala yow. Mhm. waaye àgg na ci. Mhm. toog na foofu yii ci bu mu daan toog foofu ci ci ci néegu ñax bi rek. Euh, bés am ku ko indil ab karaaf bu rafet. ab kafteer bu rafet. bu ànd ak ay kaas. waxtu takkusaan mu yor kurus gi nii di di def werdu bi. ki ki ki ñu jox ki nga xam mu indi yóbbante bi ba bàyyi ko ci ki mu ko ñu ko jox. kooku moom mi gaat nga ci baraada beeg ataaya cafetière bi maanaam ni ci mën a xellee kafe ngoon gaaw. raxas ko gaaw ah, bi baraade moom mën na see xel léegi kafe ngoon baa nangam suñu fàllu moom mi ñu bëgg yàkkamti yàkkam gi. mi ngi kurus gi di wér waaye mu ngi bëgg a wax ak moom naa ko daa koy joxoñ ko kaas yi ba mu xool mu joxoñ ko mu joxoñ ko jumaa ji. Eh. ni mun a mu xool lu ko xamul lu ko bëgg wax bi mu noppi ba teg mu ne ko waa ji kenn tër sa xol xoral kenn tër kenn tër xel kenn kël tu jëriñ dana ko lii lii mel ne ne taaru na loolu mun waaw mun ne ko jumaa ji yóbbul ci jabawaay yóbbul ci jaba jaay lu mu jar ñu def ci jumaa ji waay fii kenn tëru fee xel li mbaa naan yow xel rek maanaam yóbbul rek ci jaba bu jaree ñu def ci jumaa ji nga xam ne mu ñëw bu amee li muy jar mu def yóbbu ci jumaa waaw noonu la ko doon noonu la ko noonu la ko doon mm-hmm. lu ñëw rek lu mën doon man toog mm-hmm. loo ko jox mm-hmm. loo lu mu jàpp ne lii mën naa jar dara rek mu lijjanti la muy jar ca jaba mu yóbbu ci jumaa ji waaw looloo taxoon nag maanaam awutoon benn yitte te loolu teewutoon liggéeyu jumaa ji yàqutoon dara ci banga bangi nit ñi te mu war leen a jariñ mu wàcce boppam ba tolloo ñoom ku naqari deret ak ku neex deret ñun ñëpp ku ca doon dara ku ci doon dara ñun ñëpp mu jàpp ne njabootu Sëriñ lañ